waaw asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki waa àdduna lu wax ni yéen seen xibaaru foot yi xibaar foot international waaw tey nag ñu indil leen ci résultat yi li gën a fës ci résultat yi ci championnat d'Europe bi ñu ñëw rek ci championnat Angleterre bi Manchester City 1 West Brom 1 ndam dëkkul ndam demul di wax tamit ni Wolverhampton Challengea 1 Wolverhampton moo mën a 2 bi Challengea am di wax tamit ni championnat Allemagne bi Werder Bremen 1 Borussia Dortmund kon Borussia Dortmund moo am ndaw ci ndam ci kaw Werder Bremen di ni championnat Italie bi Benevento Lazio foofu ndam demul ndam di wax ni championnat Espagne bi Real Madrid 3 Atlético Bilbao 1 kon Real Madrid am na 3 bi ci kaw Atlético Bilbao di wax tamit ndeysaan xam naa ba beneen numéro beneen programme match journal de fut foot international ñu ñëw rek indi leen tamit ñeneen ñoo daje su paasee ñu ñëw indi leen résultat yi kon mbokk yi. loolu moo gënoon a fes ci résultat yi fii ci si seen chaîne YouTube Bëggu Ndongo TV international quand c'est important si sur la chaîne télévision Bëggu Ndongo TV international bii nag mooy seen deuxième émission muy émission sport di wax ci wàllu match yi au niveau international di jaajëfal mbokk yi bu baax a baax di wax tamit nii képp ku am programme match comme ni ngeen ko gisee rek mën ngeen ma oo sama numéro 77 421 39 74 am na whatsapp bu ngeen ma ci yónnee programme match yi rek incha allah dinaa ko liir ñenn ñen ñoo war a dajee bu ñu dajee ba pare tamit ma toppal leen ko résultat yi naka la demee kon gars yi résultat yi noonu la tëddee di jaajëfal gars yi bu baax a baax di wax ni bu leen fàttee abonné ak partager vidéo yi jaajëf gars yi waaw